mbokk yi ñu bokkal yàlla ñu ngi leen di nuyu ci gën gi nuyoo muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu si waat nañ ci njàngaleem Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu ngi ñëw ak yéen ci booy dugg ci oto wala ngay war moto wala saret wala ngay dugg ci avion yu demee noonu ñaan gi nga xam ne Seydina Muhammad joxoon na ko mooy booy dugg ci oto dangay wax بسم الله والحمد لله سبحان الذي سقر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون mu ngi سورة ci so pare nak paree nga daal di wax alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ñetti yoon soo paree nga wax allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru ñetti yoon soo paree nag nga daal di wax subhaanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta loolu nga loolu nga koy tëjee mu nekk nag ñaan gu am solo soo ko defee daal ci kàttanu yàlla yàlla dina musal ci ay otoog wala accident ak yu demee noonu yàlla na yàlla sàmm sàmm leen jërë ngeen jëfati